mbokk yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñiy faral di seetaan suñuy vidéo soo bañee suñu prochaine interview raw la bësal ci abone nga bësaale cloche bi incha allahu rabbi jaa ngeen jëf merci asalaamaaleykum mbokk ñu ngi fii ci Géejawaay arrêt du Wales Géejawaay arrêt du Wales bu ngeen fa taxawee rek yaakaar naa bu ngeen laajtee Serigne Bara Fall ah di taalibu Serigne tey suñu jàkkaarloo Serigne Bara Serigne Bara ci seen site jaajëfal. asalaamaaleykum wa rahmatullahi euh, ñu ngi wax jërëjëf sëriñ Touba di wax jaraw lakk maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp di nuyu mbokk senegal gi yëpp di nuyu mbokk taalibe yëpp. képp ki nga xamante ni daf ñuy faral di xam di ñu suivre ci interview yi nga xamante ni dañu koy faral di interviewer ñu ciy wax suñu aqulahi taala suñu kéem kàttan ci lu ñu xam te muy tegu ci diine tegu ci dëgg tegu ci lislaam te ñuy suivre bu baax ñu ngi leen di nuyu te di leen ziare bu baax a baax jër ngeen jëf. macha allah sëñ Fapal wax dëgg yàlla wax ji xam ne borom xam-xam bu la mais nag ci wàllu xam ci wàllu ñaan ñëw ci beneen mbir encore boo xam ne actualité te di ngeen ci xam dara suñu baax ñu ngi ci ñëpp xam nañ ne da nga yëngu ci wàllu ñaan loolu bu mel ni présenté waat na rek doon parce que jërëjëf ñu représenté Sénégal yi ñëpp xam nañ ne bu wàllu ñaan d' mel ni wàllu ñaan am na ci ay jafe-jafe yoo xam ne Sénégal yi dañ koy dund tout le temps bu mooy ci wàllu li nga xamante ne si mooy góobu télé bëri na tey ku takk soxna takk xale bu ndaw du ko dara muy daagu ci kër yi alors que dafa feebar Mm-hmm. tey est-ce que bu la seet si woon waaw sëñ bi ñu ngi lay bu baax a baax sëñ naa waaw loolu moom Sénégal xam nañ ma ci bu baax ndax wàllu télé li koy sabab dafa bari télé moom boo ko déggee rek am na faiblesse sexuelle impuissance sexuelle ak éjaculation précoce te ñetti fànn la yi xamante ni dañoo xaw niroo te bokkuñu am na ñi nga xamante ni dañ dem ba takk leen xala loolu liggéey la dañ leen ko def am ñoo xamante ni itam rab moo leen ko def dañ leen dañ leen sànni rab. wala rab bu leen topp di leen yàqal ba seen diggante ak seen soxna du neex te faiblesse sexuelle boobu ak impuissance beeg éjaculation précoce bi bu mu ci mënti doon ci kàttanu yàlla ak baaxamu yërmande bu ñu ko seetee ba xam ni lii mooy sa feebar wala maladie moo ko def ndax am ñoo xam te am hypertension artérielle am ñoo xam te ne dañu am diabète te loolu yëpp ci ay causes yi nga xamante ni da koy indi ba am na ñu xamante ni sax tële nañu mais seen t li ko indi mooy masturbation masturbation nag pour ñu jàngul tubaab wala xamuñu baat bi mooy mballu kuy fowee sa bopp te loolu dañ ci gis ni moom mu ëpp sax jamono ji ndax avec arrivée internet bi nit ñu bëri dañuy jël seen portable di masturbé wu di seetaan ay film pornographique te loolu dafay indi effet secondaire. Mm-hmm. te loolu dafay indi effet secondaire bi nga xamante ni mooy tax góor ñi ñu bëri jamono ji dañoo tële ñu bëri ñoo ngi naan lekk yi la nangam nangam mais masturbation man ci seen yi ñëw fii ñu ci ëpp masturbation boobu ak néew kattan boobu moo leen tax seen ngóore yi dootul màgg dootul yokk dootul rëy te dootul dëgër. Mm-hmm. te loolu jafe-jafe la bu mag a mag a a mag. mais masturbation boobu waaw mooy li ma la rab xam nga rab dafa nekk lu doy ndax rab mooy jékki-jékki xelam nekk ci sëy Euh, mënul mooy am na ñoo xam te ne duñu mooy. Mm-hmm. am na ñoo xam te ni itam bëgguñu bëgguñu bëgguñu bëgguñu sëy te amuñu soxna. Mm-hmm. am na xam te ni seen soxna daf leen sore. te ñu bëri ci ñoom it dañu mujj jël euh, film yi di seetaan pour seen xel nekk ci lu ni mel. Mm-hmm. ba foowee seen bopp mais fu ñu ko defee sëñ bi njaay dañuy toog di jooy. di réccu ni lii sax dootuñu ko def waaye leneen lañ koy def loo seytaane la te ndoxu seykaay boobu di des seen loxo mooy tax ay yaakaari tasak ay catak ay làmmiñ da ciy nekk te itam seen ngóora inconvénients yi wala effet secondaire bi sàkkar bu tuuti la ñu am bu ndaw dootul màgg dootul yokk dootul dëgër te loolu bu ñu ci demee ba yegg waxuma la sax sàkkare bu ndaw bi mais lépp luy jafe-jafe ci wàllu faiblesse sexuelle impuissance wala éjaculation précoce dañ koy faj macha allah. macha allah wax ji am na solo trop ñu ñëw ci beneen bi mooy daf yu bari taw te dafa nëbbu am na ñu feeñ sax mooy hémorroïde ëw dafa sonal na Sénégal yëpp lu bëri moo mhm. waaw hémorroïde moom wax dëgg yàlla dañ ci def benn traitement bi xam te ni forfaitaire xéewal la mhm. ndax hémorroïde dafa am interne mhm. am te hémorroïde externe am ñoo xam ni seen hémorroïde ci biir la nekk am ñoo xam ni seen hémorroïde ci biti la nekk mooy kii xam te ni biiram day ballonné day jooy day def gaz muy am ngelaw loolu yëpp ci ay symptômes yi la bokk waaye day dem bay day nàcc kooku nag hémorroïde bu avancé la day dem ba day nàcc def benn picc wala benn tàpp wala am luy génn booy dem toilette di ko génne wala boo demee toilette war a génne dara sax doo fa génne dara ngelaw ngay def. wala sax ñuy jooy bëri na ñi nga te ne ñoo ci kër yi heure bu ñu duggee douche kenn dootul mën a sangu kenn dootul mën a dugg kenn mënul dem génn dañuy baare ñëpp ndax bu ñu duggee ci douche ba daañu fa def 30 minutes wala xam te ne mën a génn. xam ngeen loolu ëpp na. te ay góor yi dem ba sa tubéy di taq di nàcc deret nga mel ni jigéen bu gis règle loolu day na waar. loolu hémorroïde moom moo koy def te loolu itam traitement bi quinze mille francs rek lañ koy faje forfaitaire dañ ci def xéewal muy hémorroïde bi ci biir bi ci biti boo daggee quinze mille francs rek lañ koy faje ku mu munti doon ci kattanu yàlla ak baaxam ak yërmandeem avec quinze mille francs sa hémorroïde dañ ci barki borom Touba. loolu la xéewalu Serigne Touba rek lañ ci def. quinze rek. ñu ñëw ci beneen affaire Serigne Bara mooy wàllu bayre man dama gis ni Sénégalais yi dañoo gis ko yor magasin wala ñu ñëw ci wala nit mm-hmm. mm-hmm. gis kenn mun naa xëy mm-hmm. bi ñibbi. dëgg la kenn. dëgg la waaw ndax tey bu bay rek waaw ñun bayre moom am nañ ci secret bu wér muy bayre xorondoom. ndax bayre xorondoom juróom ñaari buntu xorondoom lañuy ñuy jël ah, am ñaan bu ñu lay may yi xam te ne ci alxuraan lay doon ay saaro na naka faatiha ndax nit ñi itam bayre dafa mu ànd ak muslaay ak léemaay man nit ki nit ki nga may ko bayre ba pare amul lu ko aar musiba la kon dañ lay mayaale lu la aar ci biir bayre bi mayaale la itam lu ubbi sa wërsëg xaalis mën a ñëw bu baax tey toog sa loxo ndax seen ñu bëri am nañu dañu am xaalis sax xaalis bi du toog mais comme ni nga ko waxee ñu bëri itam ñoo ngi liggéey mais mënuñoo am dara xaalis mënul ñëw mënuñoo gis client seen affaire mënul dox loolu bu boobaa nag ñun dañ lay xoolal seetal la ndax man sëñ baara damay seet te ñëpp xam nañu ni itam man damay seet mais ci alxuraan rek laay te dañuy def listixaar am nañu seetu listixaar am nañu seetu jooni jooni mais lu ci mënti doon rek buñ la xoolelee ba xam say mbir fu mu taxawee xool say rawaan fu mu taxawee xoolal la say sarax loo xam ci yow ak loo xamul ñu mën la ci jàppale. kon ci wàllu bay rek xorondo. dafa am système foo waaw ba nga ban waaw dañuy xool ndax nit kii lan moo tere ay wërsëgam mën a dox. ndax xam nga nit ñëpp yamuñu. bu ñu xoolee xam ni kii kat mbiram lii moo ko tere dox. Mm-hmm. ndax dafa am rab wala dafa am cat wala dafa am liggéey. ndax lu lu war a dox doxul rek am na lu ko waral. Mm-hmm. am na ñoo xam te ne li ma waxoon rek ñun si yenn itam bu ñu gisee say mbir sax war a dox dañuy jéem a fay seen lampe pour taali seen lampe. Mm-hmm. te loolu yëpp dafa nekk ay système yi nga xamante ne dafa am ci dëkk bi. Mm-hmm. ci kàttanu yàlla bayre boobu juróom-ñaari paxu xorondoom yi la ñuy jël boole kook ay saar lu mel nag faatiha falaqi naasi surtout yaasin amana rasul alif lam mim zaalikal kitaab ak lépp lu ñu xam ci xasaayitu sëñ Tuubaa yi ñu am ñu boole kook moom ci nit ki am kaaraange bu wér am ubbeeku bu baax liggéeyu mën a dox xaalis mën a ñëw tey toog ci loxoom. barke borom Tuubaa. bayre bi leer na dañu ñëw ci benn affaire mhm. ci wàllu këyit la. Mhm. parce gis ngeen yéen yéen yéen gis di jaar. ci yoonu géej gi di dee. yoonu mhm. ñu fu parce que amuñu possibilité pour am visa ambassade. Mhm. da ngay de trente personnes. Mhm. ñetti benn bitim bi mooy ki nekk bitim réew takk jabar bàyyi ko fii def fa dix ans mënut a am këyit. ndax seen baaraam ñaari siècle euh, wax dëgg yàlla de man dama am benn jaaro bi nga xamante ni képp ku ko takk foo demande visa kenn mënu laa bañ a may visa bi. jaaroo la. ci biir am ambassade. moom moom bu ñëwee dañ koy defal jaaro bi ak ñaan yu mu àndal dafa ànd ak ay sangat ak ay suuru am yu mu àndal am ay gàllaaj yu mu àndal. yow nit ki di def ci yaramam li ma waxoon rek ndax nit ñi yàlla du yegg xéwal ci ndab bu tilim. Ah. am na ñi xamante ni seen yaram dafa tilim te foog nga sangat ba pare. Hmm. foog nga xool seen ay mbir ak ay biddéew seen ay rawaan fu mu taxaw. bu fekkee seen dafa sore nga jegal ko bu fekkee dafa am sarax yu ñu war a def nga wax ay saraxam mu def ko mais jaaro bi moom soo ko amee ci baaxu yàlla ak maagu yeneen ti beeg aminu Serigne Touba doomu aadama mënulaa bañ a bañ Ba dañuy ñëw ci benn point bu fi xamoon sax coowal bi musul yi di xeex maanaam mooy ballon d'or sëñ Ba bi ñu ñëw ci dëkk bii Sénégal boole koog Sadio Mané Mohamed Salah ci euh, ballon d'or bi Sadio Mané xaw na ko jël. waaye taux de pourcentage am itam bëri woon na trop mais dafa dem ba au dernier moment mu am gàllankoor hmm. ndax li ma ci gis mooy saajo maane moom mooy liggéeyal Mohamed Salah hmm. Mohamed Salah tey lépp lu mu am ci football ginnaaw yàlla na ko santee Sadio Mané hmm. Sadio Mané moo ko mooy liggéey di ko jox tant que maane Mané mi ngi ànd ak Salah ci biir Liverpool pour mu jot ballon door bi dana jafe ndax devant la scène euh, salaa moo fa nekk moom mooy liggéey liggéey bi am importance bi yëpp di ko jox moom muy def loolu laa ci gis ni wax dëgg yàlla moom euh, ñoo ngi koy proposé cent millions d' pour mu dem Madrid xam naa ni man mu dem moom a gënal waaye xam naa dem bi mu dana difficile man bu demoon deux mille vingt euh, Sadio Mané mën na jël ballon d'or d'Afrique bi. ci kàttanu yàlla ak de Serigne Touba. gis naa ni moom bu demoon Madrid biñ koy proposé bu fa demoon.

loolu am na lu tax. waaw oui la parce que dañu waaw loolu lañu si ànd suñu baaraam. waaw loolu bëggoon nañu juddu parce que moom bu nekkee fee da biir bu salaa bëggoon wala bu def daf bayti ba fental ko way fii Sénégal fental ko way. waaw xam nga nee naa la il est collectif en club mais il est personnel itam en équipe nationale. bu nekkee équipe nationale dafa am neenaa naa lu ko def dañ ko lëjal Sadio Mané dañ ko lëjal. du ngay déggee nit dañ ko lëjal Sadio Mané dañ ko lëjal dañ ko dugal ci mbaal bu lëj man de sama gis-gis. mi ma yàlla wan may mën a gis si doomu aadama comme ni nga ma laajee léegi may mën a gis si mbooloo loolu yombul loolu suñu borom moo koy maye. sa loolu nga wax tamit dañuy ñëwaat bi parce que da ngay gis sax ab Sénégalais fii dañuy xeex fii xeexante bi fi nekk dafa bari. Euh, fédération football sénégalaise bi dafa am ñi nga xamante ni dañu taxaw ci seen ginnaaw di yàq. am ñu fa nekkoon nekkatuñ fa am ñi xam te ñu fa nekk mais ñi fa nekk dañ leen fa bëgg a jëlee ñi ci touche bi dañuy bëgg dugg ci biir kon xeexante bi jalousie bi méchanceté bi defante yu bon yi nañ ko xool kenn du wax ci sa bopp te mënumaa wax ci sama bopp waaye sunu borom am na lum ñu bari lum ñuy may ci bépp xew-xew buy bëgg am Sénégal am na lu ci wax lu bari bari bari xam naa ko ci ñu ñëw ci dernière parce que sëñ Ba ñu gis ci sport bu doon xam maanaam ñoom dañuy ñëw ci sport wala parce que souvent da ngay gis ay mbir yu gaaw ci sport dana am. bëri na ñu may woo ci sport fépp ci football ci pari sportif bëri na man yàlla may na ma lool parce que man dama spécialisé wu ci wàllu xëccoo dama spécialisé wu ci samp nit dama spécialisé wu ci jàppale nit dama spécialisé wu ci fal nit te comme ni ma la ko waxee bépp combat muy xeex sportif yàlla may na ma ci xëccoo képp ku ma ku ma jàppale ci wàllu sport. ci looy xëccoo jongante bu mu munti doon danga nga ciy am ndam man sunu borom may na ma lool. du ma ànd ak kuy daanu. vainqueur laa teg vainqueur rek lay àndal képp ku day am ndam. ñu ci baloo ko ci sport bi xam ngeen ñu bëri na fi fii ñoom Sadio Mané jaar génération foot yeneen centre yi. ñaan la bi nga xamante ni bépp seytaane bu nekkoon ci yow wala liggéey. blessure yi nga xamante ni xale yi ngi koy am ci cheville ak genou am ñoo xamante demuñu ba ñu war leen tester pour ñu war a fubal rek dañuy am ay blessures. wala boog dañuy dem ba foofu ñu am track ñu tiit wala ñu gëlëm wala ñu am. best performance donc donte am nañ ay compétences yu mag ci wàllu football waaye ci kàttanu yàlla. seytaane bu leen jàpp wër bi ci alxuraan la ñu jël bëri ko xam-xam bi ñu yàlla may ci kàttanu yàlla ak yërmande Serigne Touba kuñ ci yàlla boole lépp dina baax. ba indi yàlla indi baax dernière question bi mooy comme Pape Moussa Lo Ba daal gis ay site yu grand yoo xam ne ñu ñu koo lu ci gën a gis boobu ñu demoon stade. mais gis naa lu nga xamante ne ay sëriñ étranger yu dëkk ay fu kenn xamul ci dëkku Afrique yi jël seen lu bon bëgg ko dugal suñuy armeel ma taxaw ci ba loolu yàlla def na amul. nit ki nag li mu bëgg kenn mënu ko ko tere jël nañ ko yóbbu ko ci stade bi comme ni nga ko waxee ñun ñëpp ñoo ko déggandoo te loolu gis nañ ko fi la ma ci waxoon nit ba wax nii ki ñu daan dina am ay blessure nañu xool ki daanu ba xam newoon naa bu dana am cinq te ci biir terrain bi la cinq cinq muy xëm dóor nañ ko mu xëm. donte xam nag mën na nekk dix secondes mën na nekk quinze mën na nekk vingt xam na ci diggu terrain ba def quatre appui wala trois appui ak ni ma wax noonu la waxoon dama naa dana jël coup dana cinq hommes te ba fi may wax yow il est malade il est gravement atteint. dafa feebar am ko dal ñu ah, tout cas dafa feebar loolu laa waxoon loolu laa wax dafa feebar dëlëm gi nag comme que suuluñu ko yàlla moo dimbali waxoon naa dama alerté woon pour ñu bañ ko suul comme que suuluñu ko nag yàlla mun na ko ci dimbali te ñoom it woote nañ jooy jël ay sarax waa Kër Balla Gaye def nañ ay sarax. sarax yi ñu def na peut-être moo moo moo dimbali ndax sër sarax Serigne Saliou Mbacké dana wax ni dana tëj fukki buntu musiba ak balaa waaye dana ubbi fukki buntu xéwal ci doomu aadama. parfois dañ la bëggoon laaj juste rek lan nga waaw moodu moodu yi moom li ma leen gisal pour at bii euh, gisal naa leen këyit dana yomb loolu ci deux mille dix neuf. ña fa ne. deux mille dix huit metti woon na trop ci ñoom këyit amuñu mais ren deux mille dix neuf gisal naa leen këyit. gisal naa leen itim ñu bëri ci ñoom daañu leen delloo ci dëkk bi. daañu leen rapatriement dana am. gis naa itim ñu fa am jabaru tubaab dana am tuuti ay coow ak ay jafe-jafe yu ñu am. waaye itim xaalis dana fa bare. incha allah pour ñi nga xamante ni euh, bàyyi nañu seen xel ci ay ñaan loolu gis nañ ko ci maanaam comme deux 2018 bi nu mu méttee woon ci at yu mujj yi ci wàllu xaalis ñàkk liggéey. wax dëgg yàlla ren moom dana am. ci la gën a am yombu yomb ren dana am xaalis dana am kayit waaye nag jafe-jafe ay coow moom dana bari ndax dana am ñu ñu rapatrier te dina am ñi nga xam ne itam dañu am problème ak seen jabaru tubaab nit ay sénégalais yi nekk fii am fa soxna wala sénégalais bu jigéen bu fa am jëkkër tubaab danañ am ay coow ak ay jafe-jafe loolu am na incha allah. lan xam a ngi ne ah, mhm. gis ay góor yu mhm. ndaw xale yu ndaw xale mhm. am da ngay dégg sax ay cas yoo nga naan la tey est-ce que am nga secret yoo aaree xale jigéen yooyu ak tamit ñi koy def waaw xale jigéen yu ndaw yi nee naa la am nañ ci benn pexe benn gàllaaj yi nga xamante ne dañ koy may xale bu jigéen bi lenn li lu muy naan la lekk ko lenn li nga xamante ni bu fa nekk téere ci moom pendant un mois rek xale bu jigéen bi du ko tekki bu takkee un mois te tekkiwu incha allah tànk mooy ñu ko borom kër xale bu jigéen boobu du mus ànd ak góor ci lu neexul suñu borom mukk kenn mënu ci dara ilaa abadan mukk jamais loolu nag xam-xam la ikma la waaw loolu nag ay secret yi nga xamante ni dañ koy maanaam bu xale bu jigéen bi dafa am garab bu koy jox mu jël ko ak téere bi nga xamante ne da koy takk juste pour un mois lu xale bu jigen bi ndaw ndaw ndaw bu ko takkee 1 mois c'est fini ba keroog ñu koy may borom kër benn goor mënu ko tim ci lu neexul suñu borom tank moy ñu ko borom kër. bu ñu ko xutbaalee rek buñu ñu ba paré rek ci la lool di toj mais tank que luñ ko lool mënut a dañ. incha allah bu ñu xutba xutba rek ko mëna a toj. bu ko toggé xutbaal ko turum ak turu borom kërëm automatiquement lool day toj lool xam-xam la ci kattanu yalla ak baaxu yalla ak maaku yéenante bi ak amenu Serigne Touba ان شاء الله ربي بيب خالي بو جيجين بوكو ويجورم تاكال موتشي نتي لولو